Birahim man maa ngi dëkk Mbudaay euh, di jàppale DG Moustapha Guèye président Macky Sall bi mu waxee naka na DG Moustapha Guèye ñëw Jurbel jàppale ko ci wàllu politique ba fi mu nekk nii combat politique yépp yi nga xamante ne moo soldé ay victoire Benno Bokk Yaakaar ci Jurbel DG Moustapha Gueye tànkam mi ngi ci biir depuis bi ko je précise bien depuis bi ko président Macky Sall waxee na ñëw Diourbel pour jàppale ko ci ci ci wàllu politique. DG Moustapha Gueye sorti bi mu def Cheikh Ibrahima Mbacké li ma wax man dama siy ñëwaat pour mu gën a clair il a que le ministre daam Diop ay forsam am yëpp mi ngi ko concentré. ci moom pour combattre ko euh, à kër à a Médinatoul loolu xam nga lan lay tekki Médinatoul ba électorat bi dafa rëy rëy rëy rëy ba nga xamante ne même président de la république fi mu dëkk Fatick médinatul moom moo ko ëpp. donc dañuy ne dañ ci rocc suñu loxo bàyyee ko directeur général Moustapha Guèye yaa ngi dégg su ko defee résultat bu négatif bu fa am ñu ne xamoon nañ ko mais dañuy su su jëlee tey ay nit fal leen médinatul defar ay infrastructure médinatul tey ñooñu forcément dinañ politique médinatul dinañ ba base bi te mën na mën na participer positivement ci élection yi ñëw léegi bu ñu roccees bu rocce bu fa falul kenn def fa benn infrastructure mooy base politique DG Moustapha Gueye la nañ ko bàyyeek moom pour mu suux en réalité loolu la DG Moustapha Gueye bëgg bëgg bëgg a expliquer maire Malick Fall bi coalition bi lépp lu ci am yaa ngi dégg bi mu ñëwee ci coalition bi moo ko may mu nekk député yaa ngi dégg moo ko moo ko may président de la république tëli yii ak ak infrastructure yi nga gis jurbel yépp yi nga xamante ne moom dafay taxaw di fëgg dënam naan réaliser nan réaliser nan moom du réaliser wu ko c'est le président de la république moom moo ko réaliser donc compagnonnage boobu warul ñëw ba au dernier moment à deux mois des élections mu ñëw wor daal di taxaw ne damay samp sama ndënd alors que coalition bi décidé guñu kii kan mooy nekk fii ak kan mooy nekk fii dafa waroon a déglu président de la république comme moom la moo moom la waxtaanaloon mu dugal ko ci coalition bi permettre ko mu nekk député permettre ko Diourbel ñu def ay réalisation à Diourbel donc DG Moustapha Gueye a eu raison de dire que si le maire Malick Fall ose claquer la porte à deux mois des élections c'est la faute au ministre Dame Diop Le directeur général Moustapha Gueye ne fera jamais une vote sanction à Diourbel. Il fera triompher la coalition Benno Bokk Yaakaar ku xam politique gis ko li muy liggéey xam ne ci loolu lay dox